ba léegi ci dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne fi la ñu daal di seetee ki nga xam ne moom moo di moodu moodu bi ñu jàpp ne dafa am doomu jàngoro bi ñuy wax coronavirus wala Covid 19 moom mi nag fi la ci Touba fi lañ ko daal transféré fi nga xam ne moo di hôpital Fann ba nga xam ne fa la ñuy saytoo doomu jàngoro yi wàllaatee centre de santé bu Daaru Marnaan nag foofale fa la ñu daal di defee li nga xam ne moom moo di prélèvement yi maanaam fa lañ ko jëlalee deret daal di ko yóbbu ca institut Pasteur foofale nag askan wi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Daaru Marnaan nag jamono ji ñu ngay fësal ni seenum xel dal na bu baax a baax amul lenn lu ñuy tiit mbaa lu ñuy ragal te jamono ji nag bépp matukaay boo xam ne ni war nañu koo jël jël nañu ko ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy waa service d'hygiène daal nañu fay dem yóbbu fa équipement bu mat sëkk waaye itam daal di setal bërëb ba désinfecté ko ba mu set wecc ngir doomu jàngoro yi nga xam ne ni jàpp nañu ñoom ñoo ŋànk lépp jëm ci wàllu wér-gi-yaram gi ci dëkk bu sell bi di Touba nag ñoom eh, fexe nañu ba nëbb li nga xam ne moom moo di bërëb boobilee laataa ko taskatu xibaar yi di xam amoon nañu ay jafe-jafe bu baax a baax ñi ngi fësale ni taxoon ñu di ko def mooy fexe ba population bi daal di a a ne ki nga xam ne moom moo di malade boobu lee ñëwoon ñu testé ko ci centre de santé bu Daaru Marnaan dëkkewul ci quartier bi ñuy wax Daaru Marnaan jamono ji nag xibaar yi nga xam ne nii mujjees na cee jot moom moo di ne waa institut Pasteur nag yabal nañu fi waa institut Pasteur nag yabal nañu fi ab équipe ngir daal di xool waaye tam daal di seet ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootu ko moodu moodu boobilee ba xam ñoom itam jotuñu ci jàngoro jilee mënee ni mbir mu ci xew itam maanaam ñi nga xam ne ñoo taskatu xibaar yi nag jamono ji bépp xibaar boo xam ne nii ma ngay génnee ca mbir mu ni mel dañu leen ko nëbbal ñi def mbir mu ni mel nag di mooy district sanitaire bu Touba teew def nañu ab communiqué jëm ci mbir mu ni mel jëm ci cas bi waaye nag waxuñu nag bërëb ba waxuñu heure bi waxuñu ak lenn loo xam ne nii daanaka mënees na ci jëlee ab xibaar li ñu mën a jàpp rek moom moo di jamono ji Touba ak dal ak tekk tekkaaral ak xel mu dal moom la ñu mën a nemmeekoo ci population bi